ci sunu téere boobu di risaalatun fi lwudui walxusli walsalaa bu alcheikh alallaama muhammad bun saalix al uthaymin raximahu llahu taala xam ngeen ne tàmbale woon nanu fi nga xam ni moo aju ci kayfiyatul wudu maanaam naka la ñuy jàppe mu mel ni ci yoonu leeral ni ñuy jàppe boroom téere bi da ko xaajoon ci ay tomb tomb bu jëkk bi mu aju woon ci yéene ñaareelu tomb bi aju ci tasmiya maanaam wax bismillah mu mel nii kon doxoon nanu ba agsi ci ñetteelu tomb bi te muy summa yaxsilu kaffayhi thalaatha marrat gannaaw yéene ji ak wax bismillah mu ne la ca topp mooy mu raxas ay ténqam Tiang mooy li ko dalee ci baram yi ba fi nga xamni fa la ñuy tuddee takku jaré yi manam fi ñi takku montre mune bu boba ñett yoon la koy raxas ñentel ba mune summa yatamadmadu summa yatamadmadu wa yastanshiqu bilmai ma'i thalatha marrat bobu di ñental ba mu ne top nak mu daldi galax ndiku sarax ndiku ak ndox mi lola nak ñett yoon kon la ca top moy sarax ndiku ak galax ndiku sarax ndiku ak galax ndiku nak ibn al qayyim dafay wax ci zaadul maad bi téeram boobu nga xam ni da ci nettali ak a jàngale njubal yonant bi alayhi salaatu wassalaam ci mboolem bunt yi nga xam ni ay bunt diina la ba mu accé ci njàppal yonante bi alayhi salatu wassalaam mu ne moom yonante bi alayhi salatu wassalaam de daan na gàllax ndiku di sarax ndiku ma ngoog léegoo léeg daan na ko defeeg benn li nga xam ni mooy asu ndox bu asee si loxoom ci tinq bi ma ngoog daan na ko gàllax ndikoo léegoo mu def kook ñaari ñaari as léegoo léeg mu def koo ñetti ñetti as te it daan na jokkatle gallax gi ak sarax ndiku gi daan leen jokkatle daan na jël la nga xamante ni nii mooy la mu as ci ndox ci loxoom genn wàll gi mu jagleel ko gémmiñ gi ci gàllaxndiku gi la ca des muy beneen genn wàll gi mu jagleel ko bakkan bi ci sarah bi maanaam Daud tàqale kalle, bi ak aksarah bi ci bu nekk mu daal di koy asal ndox ma ngoog waaye ci benn as bi mu as ci benn yoon boobu la mu as ci ndox ci loxoom walla la mu sotti ndox ci loxoom loola da ka daan xaaj ñaar ma ngoog loola da ka daan xaaj ñaar bu ko defee lenn li mu gàllaxndikoo ko ci gémmiñ gi gàllaxndiku tuur la ca des mu daal di koy saraxndikoo maanaam mu jëm ci bakken bi kon nona la ibn al qayyim nettalee melokaan gi nga xam ni moom mooy gàllaxndiku ak saraxndiku mu ne summa yaxsilu topp mu daldi raxas gannaaw gàllaxndiku ak saraxndiku topp mu raxas wajhahu thalatha marrat xar kanamam moom lay raxas ñetti yoon ma ngoog kon kanam gi niki ndiku gaak raxas tenq ya yoy yépp bu ci nek borom téere bi ni ne ci lim muy ñett yoon mu ne kon bu daan raxas kanam gi minal uduni ilal uduni ardan da daan jël yaatuwaayu kanam gi yépp la ko dalee ca catu nopp maanaam catu nopp ndeyjoor ba ba ci catu nopp càmmoñ ba loolee lépp da daan dugg ci la nga xam ni mooy raxas kanam gi kon kanam xar kanam du boo jàkkaarlooweek nit ki la ngay jàkkaarloowee ak moom déedéet waaye wet yi nga xam ni dafa jëm ci nopp yi loola day dugg ci lu nga xam ni mooy kanam gi kon ca catu nopp ndeejoor ba ca catu nopp càmmoñ wa min manabiti shaari rasi ila asfali lixyati tuulan bu dee guddaay bi it mu ne la ko dalee ci fa karaw yay sax muy karaw bopp fa muy sax ba ci suufu sikkim ba ci guddaay loolee lépp kon moom mooy li ñu war a raxas ci kanam kon gis nga li kanam ëmb li ko dalee nopp ndeyjoor ba nopp càmmoñ ci yaatuwaay bi guddaay bi li ko dalee ci sax-saxu karawu bopp yi jëm ba ca suufu sikkim ba loolee lépp day dugg ci raxas li nga xam ni mooy kanam gi mune lola yit limba moy salasa marrat ñett yoon ba ca top mune summa yaghsilu yadayhi top murahas raxas ay yoxoom salaasa marraat loxeyit yi ñetti yoon summa yaghsilu yadayhi thalaasa marrat la ca top moy murahas la nga xamni moy yoxaya yoxo ya ñetti yoon yoxaya nak bu len di rahas mune day dalé ci min ruusil asabi' mangok day dalé ci la nga xamni moy bopi baram ya ñu bàyyi ci xel bu baax ma day dale ci boppi baaraam ya ñu bari bu ñuy laxas yoxo yi foofu dangay gis dañuy tàmbalee rek ci li nga xam ni mooy ci fa nga xam ni mooy takku jaraya te fekk tàmbale gi fa muy doore mooy ca catu baaraam ya waaw ca catu baaraam ya min ruusil asaabi loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ca cati waaraam ya foofu la war a tàmbalee ilal ni jëm jëm fan jëm ca conc ya ma jëm fa nga xam ni mooy conc ya foofu it conc ya doo ñëw ba jub conc yi taxaw déedéet waaye conc ya dañuy duggaale ci biir raxas ba mu mel ni foofu ilal mirfaqayni maanaa ja mooy maal mirfaqayni waaw ndax lan mirfaqayni yi muy conc ya dañuy duggaale ci biir la nga xam ni mooy raxas ba kon tàmbali gi ci yoxo yi fan la cati baaraam ya lay tàmbalee raxas jëm ca conc ya bu ñëwee ba jub conc ya ndax day taxaw déedéet du taxaw waaye day boole waale conc ya ca raxas ba maanaam kon day romb conc ya mangoog conc ya day dugg ci biir ah, raxas bi dafay enveloppé waale conc yi muy kudd yi dañuy duggaale ci biir li nga xam ne mooy raxas bi mangoog foofu it da gis ñu bari bu ñëwee jub conc yi rek fa ñuy yam gis nga mangoog loolu it gàttañ la waaye conc ya day dugg ci biir raxas ba waaw cati waaraam ya it fa lay tàmbalee moom it day dugg ci biir raxas ba mu ne yabda'u bil yumna na al yusra ndegam yoxo ya nag am na ndeyjoor ak càmmoñ ban la ci tàmbalee mu ne buy tàmbalee day tàmbalee ca ndeyjoor ba loxol ndeyjoor ba lay tàmbalee ba ngoog bu ca noppee nag dal di dem ca fa nga xamni moy loxoy loxo càmmoñ ba fofu it ñaata yoon ñett yoon bu ne ñett yoon ma ndey jor ba ñett càmmoñ ba càmmoñ ba ñett bu ko defé kon mbokk yi nu tek fi sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal nu tawfiq defal lenko ko defal nu sir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh